inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wa man yaxruj min beytihi muhaajiran ila allahi wa rasulihi summa yudriku mawtu faqad waqafa ajruhu ala allah inna lazina saarahu li xidmati falahum diyaara wastal jannati asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu surtout Sëriñ Habibullahi moom Cheikh ak ci turu mboolem waa Touba ci kanam sëriñ Habibou di yëkkati kàddu ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekk sëriñ Touba moom mi nga xam ne liggéey bii nekk di liggéey moom moo koy liggéeyloo sun borom mii dogal nag dogal ci ab dogalam jii am lu xew ci biir liggéey bi xew ci ñooñ liggéey bi di ay bokki taalibe yoo xam ne danoo jugoon jaayante ak sëriñ Touba. ñëwoon ànd ak nun di liggéeyal sëriñ Tuubaa yàlla doogale nag nu ne ci liggéey ba sun borom mi nga xane lu am mooma te sañ te man tey def tey dindi te kenn suñu ne ko lu tax nga def mu def ci coobareem ak kattanam ak sañ-sañam jëfandikoo ci ay jaamam la ko ca soob te muy lum sañ te du tàggu kenn te waxoon na ko ba yàgg nag kullu nafsin saa'iqatul mawt allazi xalaqal mawta wal xayaata kon mbir la moo xam ne mu baaxu am la dikkin yi nag mooy wute ak saa yi dikk ak ni muy dikkee bi yàlla dogalee nag mu am ci takkusaan bi nuy woo sëriñ Habibu nu bokk toog nu xamal ne nu am nañu yàlla wàcce ab dogal seen kaw booba sax xaj na dogalu faatu ak séegut waaye dogalu jëyee ak si na fan ko yégee tàmbali di ca ñaan nis ku si la nu woo xamal la ca xew booba itam la nga xam ne moom la ab jaam man daal dinañ koy tàmbali def muy jug dem ci ki nga xam ne mooy sunu kilifa di Cheikh Mouhamadou Mountakha yëgal ko ko ko bi nu ko ko waxee lim njëkk a waxe mooy ñooñu dañoo saxit saxit mooy ku dee ci xarab lislaam boo kàddu rek doy na sëkk dañoo saxit la wax joxe ak ñaan yóbbante nu ci seeni bokk ak ñaan yóbbante seeni bokk dalu xel yóbbante seen seen bokk massawu yóbbante ñu seen bokk seeni bokk am njaal ci kaw loolu nag Serigne Xëy bu ak waa Touba ca kanam gépp di ci yëkkat seen kàddu ginnaaw boo xamante ne ki moom liggéey bi moom dem nañ ko ba yëgal ko li xew ba noppi Touba ci kanam di xam la ne li xew day moom yàlla suñu doom moo ko xewal te di ko xewal ci ku ne ku mu ci nun ci waxtu wam ko sàkkee ndax ku ne ba mu la bindee la la bindaale sab dikk kenn ku nekk bis nga fii nikk alhamdulilah bi alamin nag ñii seen bis dafa agsi waaye mu agsi ci ak seen wu taw feexe ak seen wu ànd ak ndimbalul yàlla ndax xëy sëñ Tuubaa sa des ca mën ni suta ëpp yaakaar amee su am yaakaar jug ëpp fañ jëm kon mbir la mu diis mbir la mu bette mbir la mu mette waaye nag mu sante ko yàlla ndax kenn du wees sa bis suñ demee wutoon ci nii it danañ demee ci neneen waaye bisub dem moom kenn du ko weesu li kulli ummatin ajal fa isa ja ajaluhum la yastaxiruuna saatan wala yastaqdimuun kenn ku ne dig du avance minute du retard minute waxtu wa dig ba agsi képp képp te ngay faatu ku mu ci noonu rek loolu lay nikk kon ñoom seenu digg dafa teew alhamdulilah bi alamin nag ba mu teewee ci fekk leen ci loo xam ne mëneesuta faatu ci lu ko gën mm-hmm. mëneesuta faatu ci lu ko ëpp yaakaar ko mëneesuta faatu ci lu gën liggéeyal sëñ mm-hmm. kon ñii nga xam ne yàlla dogal na lii mu dogal ci ñoom noon day ay jaam rek lan dañuy delloowaat lépp ci yàlla mooy li ma ubbee te sunu borom wax na lu dal seen kaw na ngeen ko wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mm-hmm. waaye nag laaye jooju ma ci teg nga xam ne suñu boroom daa wax ne képp ku génn sa kër dox wuti yàlla ak yonente bi di def loo xam ne yàlla képp a tax ak yonente bi ba faatu fekk la ca la nga bëggoon am nga ko ndax danga jot sab yoon sëriñ Tuubaa itam wax ne ne suñu boroom ñëpp ñi nga xam ne gaaw nañ buñ ma wootee di ma liggéey danañ gaaw jëm ca liggéey ba na nga leen defal ay kër yu bari ci digg àjjana kon nag ñii suñ xel dal na ci ñoom ndax kat ay jàmbaar la ñu woon moo leen taxa seen seen bakkan des ca kon ñi nga xam ne ñooy seen wayjur ñu ngi leen di mastaw ci turu sëñ Abibu ak turu kanam gépp di ànd ak ñoom tiis wi di leen xamal ne bay boo seen xel dal te seen njoor ta rafet te xam ne liñ bëggoon ci seen doom yi de moom yàlla defal na leen ko ci ndax sëriñ bi moom képp ko yàlla booleeg moom am nga taw feex waaye liggéeyal sëñ Tuubaa nga ne ca biir liggéey ba sa bakkan des ca loolu moom ndimbalul yàlla moo koy maye feex ju kawe moo koy maye waaye yombul ñëpp kon ñoom gannaaw dañoo loon sëriñ Tuubaa yàlla suñu borom mi wàccee fekk leen wàccee leen ci toolu sëriñ Tuubaa ah ñooñu di sant yàlla bu baax la def ci ñoom li ñuy wax de xëy na dañ yàlla na sunu mujj rafet daal ba mel ne seenu mujj bakk sëriñ Tuubaa loolu rek lan ci mën a dolli waaye mujj rafet ci toolu sëriñ bi ndax bari na lu ma koy wax ci bis boo xam ne dafa toog njëriñ ba guddi mu jekk-jekk génn waaxu ba ci ay armeel yu newoon ci ginnaaw mu taxaw ci fekk bi mu ne tëll bunt bi am na ku jox jox gi mu ŋàbb ko fekk mag ñi dañ daan def bu kenn day boof ci bunt ndax duñu xam bunt bu muy génne am mu jox satale gi waxu ko dax di waaxu waaye mu topp ci satale gi ba mu dem ba wër armeel yi ba noppi taxaw ne ko ana kii kooku ku ñu wax suñu Omar Diba la mu ne ko mën a Omar Diba mu ne ko xanaa ameel yi moom ñi ñu fi suul kenn ko mas a liggéeyal wala kenn ku mas a liggéeyal ko mas a liggéeyal nekku fi ameel yi ñu ñi ñu fi suul xanaa kenn ko mas a liggéeyal wala ku mas a ko mas liggéeyal nekku fi suñu amoo di ne ko ah loolu day mbàkki kumba sama mu ne ko ameel yi de ko mas a liggéeyal nekku fi ku mas a liggéeyal ko mas a liggéeyal nekku fi ndax seen yuux yi moo taxoon mënatumaa nekk ci sama kër gi waaye bi ma fi tegee sama tànk lañ leen jégal armeel yi sëñ Amar Diop ba mu xëyee ñam ko laaj dañ ko ne ay séeréer yu tuubut lañ fa daan suul xamuñ jullit buñ fa mas a suul kooku nag kon ku ko nekk ci tool toolam ba faatu fekk la ja ah sam xel war naa da sa sa njott war naa rafet seen i way jóge xel seen xol war naa sedd ci lii seen mujjug doom yi ndax bu ñu fi nekkoon nit kat xamul nu ñuy mujjee ak ñoom kon fii yàlla mujjee ñoom sëñ Tuubaa mujj fee ñoom ak mujj goo mënu ko weesu kon ñu ngi leen ci mastaw di ko bokk ak ñoom waaye di leen xamal ne na seen xel dal te seen njort rafet te ñaanal na leen seeral leen ne dañoo saxit te ku fi nekk sëñ Tuubaa moom lu mu wax yàlla fekk ko ci kon nag alhamdulilah bi alamina lañ ciy teg di leen masaw di leen xamal ne Touba Ca Kanam fas na ko yéene ànd ak yéen ci lépp ànd ko ñi nga xam ne ñooy seen i ñooy seen i wéyju ñooy jege ñaale Touba Kanam fas na yéene ànd ak ñoom taxawaay bépp taxaw leen taxawaay ya ca wax di xam leen ne liggéey bii itam biñ koy def yàlla dogal na biñ sëñ bi joxe ndigal daf noo boole woon ak suñ basum suñu Abdou Khadir ñu jaar fi ñu war a jaar fépp ba agsi fii biñ nga xamee ne yàlla dogal nañu agsi boo xam ne tëli la waa asawur ñoo baaxoo di ko gas duñ ko laal ñoom ñoo ba noppi ba ñu ne liggéey bi daa a a wéyal liggéey bi ñëw nekk ca ca la dogal bi agsee waaye ñu xam ne dogal bu yàlla la waaye du càggante du càggante kenn ci ñi seq liggéey bi ab dogal nag moom faw bu jotee day agsi rek dogal moom faw mu dog yàlloon te xamees ko yàllante na te ñàkk koo xam waaye bis bi moom bu agsi faw nit ki dem loolu rek waaye loolu rek moom te suñ borom jaarale woon ko fii te nag leen dimbali képp a nag ndax bu ñu nawtoon a am dimbal duñ faatoo ci tool bi sëñ Tuubaa kon loolu ñu xam le ne ak càggante wéralu ko ndax ay machine ko doon gas te gas nañ ko gasin woo xam ne tegu na ca yoon wa xam ne moom la seen xam laaj ñu war koo def waaye nag yàlla mii dogal moom moo dikk ko dogalam muñ demutoon foofa it dem feneen nit demee na nu ne nit dem na ci lu ne nit teelu na fu na dem waaye dem ci daal dem goo xam ne fu mu demee ñu ne daa xëyoon ci toolu sëñ Tuubaa faatoo ci daal googu dem moom yàlla nu ko yàlla te mu te ñu yàgg fi yàgg leen a ñaanal di masawu ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp di jéggul